waajal ñu mokkal alquran moom la ñu waajalee sun gan ñi nga xam ne ñoo mokkal alxuraan te war a dugg si si baas bi waaw waaw ما شاء الله يا هامل القرآن قد غسك الرحمن بالبدل والتيجان والروح والريحان جارنا كده كموكل القرآن luñ ko tagg doyul luñ ko neexal doyul luñ ko ñaanal doyul ku mokkal alquran ndax mokkal alquran ngëneelul sunu borom la loo xam ne sunu borom moo koy jagaleel ku ko neex macha allah. ngëneel loo xam ne yàlla moo koy maye ngëneel la loo xam ne kenn mënu koo jënd ngëneel la loo xam ne kenn mënu toppale ba am ko ngëneel la loo xam ne kenn mënu koo faraatu waaye nangoo góorgóorlu ca daara ja yàlla sunu borom tabaraka wa taala jagale la ko kon xale yi mooy ñi mokkal alquran xale yi mooy ñi am ndam xale yi mooy ñi tànkal bis bi pour di sargal waaye pour di neexal waaye pour di leen bëggal waaw leen xool bu baax te foto leen foto yu rafet ñii ñooy jàmbaar yi ñii ñoo ñu fi tax a tase tey ñii ñooy ñu mokkal alxuraan ci kaw nga xool bu boobaa réyal nga lu tuuti te tuuti lu rëy ñooña mooy ñii ñii la yàlla wërsëgal ñu mokkalal téere bi mbokk yi ñi ñoo am ndam ne yow waajur yu ko xamul mokkal alquran mooy xale bi téeméeri saar ak fukk ak ñeent kaamil bii nga gis 114 suura la téeméeri saar ak fukk ak ñeent xale yii toog moom lañ mokkal téeméeri saar ak fukk ak ñeent kaamil bii nga gis juróom benn fukki isib la xale yi toog moom lañu mokkal kaamil bii nga gis nis fi téeméer ak ñaar fukk la xale yi toog moom lañ mokkal kaamil bii nga gis rebond yi ñaar téeméer ak ñeent fukk la xale yi toog moom lañ mokkal kaamil bii nga gis sumun bi ñeenti téeméer juróom-ñett fukk la xale yi moom lañ mokkal kon xale yii ñoo jara tagg ñoo jara sargal ñoo jara kañ waaye ñoo jara wane waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ku gis lu baax na lu baax a ngi waaye lu baax a ngi nii liggéey bu rafet a ngi nii waaye ginnaaw sunu borom bi tabaaraka wa taala grâce à Baye Talla Ndiaye yàlla na fi gën a yàgg gën a wér Baye Talla ni ma yéene mu yàgg fi te wér mënu koo wax ndax liggéey bu rafet bi yëpp moom la te yemul fii ku ko xam-xam ne ab liggéeyam yamul fii boo demee Touba lu mel nii la fa taxawal teg fa jëwriñam Mouhamed Nassirou Ndiaye ak mboolem ñi koy jàppale nga dem Louga sëñ Cub Jaaj lii la fa taxawal ba nga ne seedale si ak mboolem ñi koy jàppale nga dem Kalsaan loolu la fa taxawal ak mboolem ña koy jàppalee jàppale Baye Modou Ndiaye ak ñooñu nga ñëw nag macha allah ci jàngalekat yaa ngi nii monsieur yaa ngi nii yaay daara yaa ngi nii kon liggéey Baye Talla moo nekk nii na ko ñëpp xam Baye Talla yàlla na fi gën a yàgg gën a wér ak mboolem équipe technique bi koy jàppale. mbokk yi lii moo jar a wéy lii moo jar a tagg lii moo jar a feeñal lii moo jar a yëkkati sëñ photographe damay wax ne sëñ photographe Sénégal dama fay gis loo xam ne bokkul ak li ma jàpp. Sénégal léeg-léeg nga dégg ñu ne diw moo dàq dugal bii wala diw moo dàq fecc wala diw mooy miis wala diw mooy roi de roi de damaa wax ne ñii ñoo jar a tagg ñii ñoo jar a teg ci avion di wëreem réew ñu naan nañ ko xool ku mokkal téere sunu borom bi tabaaraka wa taala te jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de saaba yi kenn ku nekk lam daan ndamoo mooy li nga mokkal jëm suuf am ku ne man de alxuraan yëpp wala asri ba suuf laa mokkal am ku ne man de alxuraan yëpp xul wallaahu bu suuf laa mokkal waaye yàlla baaxee ñu suñ tuut tànk yii mokkal téeméeri saar ak fukk ñeent mokkal juróom-benn fukki isib ni ma ko waxee léegi ñii ñooy jàmbaar ñii ñoo jara tagg ñii ñoo jara sargal waaye mbokk yi dañ leen doon may rek ñu dugg si waaye dañuy wéyee liggéey bi di wax ñëpp nag surtout waajur yi képp ku doon neexal xale xale yi gën a jara neexal a ngi nii képp ku waajaloon kado ñi gën a jara jox kado ngi nii di nga bég lool ndax ñii bu ñu jàngee rek sa xol sedd damay wax ne ñi doon jàng yëpp dañ doon gunge ñii ñooy jàmbaar yi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. waaw maa sha Allah jaajëf jërëjëf Lamine Ndaw moo si topp soxna Aysatu Seen moo si topp ñoo ñëpp mën nañoo waaj jege si sëriñ Seex Joom boo toogee nga déglu oustaz dina la jox fi ngay jàng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على إذا liggéeyam ci daara di yaa sëy na bu bu sa xam nga damay faral di wax ne man yàlla daf maa nattu bokk si ñi nga xam ne maanaam jëf ju baax ju ma xam rek man damay fexe di ko répété rek waaye safaan nag la ma yàlla nattoo bëgguma koo xam sax man safaan waaye ku ma xamal lu baax am nga problème fu ma toll dama koy wax te yaa sëy na bu sa daa baax daa jàpp ci daara ji daa nangoo sonn ci daara ji dama koy wax conférence ba su Touba di ko wax fii ne kii yaa bu Bousso kii yaa Soxna Aïssatou Seck ak ñi mel ni ñoom ak ñi leen di jàppale wallaahi jàmbaar lañu jar naa tudd seen tudd sa kaw de yaa Seynabou ku jàppale Baay Taala si ji la ku jàpp ci liggéey bi la te ma nga nee toog na ngeen xam ne léegi la dugg si nag ma nga nee toog ak mbokkam yu baax yee toog soxna Aïssa ak ña ñu àndal jërëjëf yaa Seynabou ñoo ngi lay dalal bu baax sa jëf si daara ji yàlla gis na ko yeneen bi gis na ko Serigne Touba gis na ko ñun nag li tax ñu mën koo wax suñ baay ju baax jee da koo seere ay mbokkam seere ko waaye suñ ko seere wutoon sañu ñu koo wax waaye dalal ak jàmm yàlla na suñ borom gën a yokk sa fan gën a wéral sa cër ba nga gën a mën a jàppale si sëñ bi si liggéey bi ba yéen a àgg fa mu ko bëggee ndax li tax nag mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi góor goo gis mu jàmbaar soxna su jàmbaar a nga sa watam kon yen soxna yi jàmbaar yàlla na leen suñ borom gën a kàttan kàttanal yéen soxna yu jàmbaar yàlla na leen seen borom gëna a kàttanal ndax li tax mooy liggéey bu mel nii góor rek mënu koo liggéey sans soxna si wetam waaye soxna rek mënu koo liggéey sans jëwrin ci wetam kon yàlla nañu yàgg a ànd liggéey liggéey bu rafet macha allah soxna na bu yàgg sa délégation jëri ngeen jëf dal leen ak jàmm Mohamed Ndaw moo si topp Mohamed déglul tuuti oustaz jox la fi ngay jàng bu noppee ñu woo soxna sotu seen bismillah oustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز حسبك صدق الله العظيم السلام عليكم وعليكم السلام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 xabulika سبقت لهم منا الحسنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقوا لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون la إله واحد حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله بالله من nee na ma ñaari at ak genn wàll si la jàng alxuraan mokkal ko ñaari at ak genn wàll wax nañ ne si la jàng alxuraan mokkal ko wax nañ ne juróom-ñeenti at la am am di Moustapha Guèye ah maa ngi ñaan ci barkeb alxuraan ci barkeeb bis bii ci barkeeb sëriñ Touba ak barkeeb mboolem gaa yu baax yi yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla wéral cëram yàlla ko yàlla may xam-xam bu bari te barkeel bu boobaa nag lii ma bëgg a def maa ngi leen di wax ne defuma ko ngir dara dama tànn liggéeyal alxuraan ñi ma miin yëpp si leen lañ ma miinee liggéeyal alxuraan ak liggéeyal Serigne Touba. ba tax na nag man comme ma awma ma bu ma ko mën a teg ñëpp di ko séen damay ñaan rek ngeen may ma ma yëkkati ko ñëpp di ko séen. na ko ñëpp seen na ko ñëpp xool te ñaanal ko te xool ko bëtub yërmande na ko ñëpp seen nañ ko xool te ñaanal ko te xoolal ko bëtub yërmande ndax wax nañ ma ne mbooleen kaañi moo si gën a doon gone juróom-ñeenti at la am ki ko jàngal nee na ñaari at ak genn wàll si la jàng alquranul karim toogal nii toogal fii toogal toogal toogal ma si yow sa saada danañ la ko jox toogal fii ku la xool bët bu la neexul wax ma ko waaye li ma jubloo def nag mooy ñeent fukki junne laa bëgg ñu dajale ko fii man ma jàppee ko ci liggéey bi ñeent fukki junne ñaari yi laa déparé ñaari junne laa am ñeent fukki junne nañ ma fekk fii jox ma ko ma jàppee ko ci liggéeyu daara ji te mu leer nag balaa maa sori yalwaanu ma ba mu leer yalwaanu ma paas naa ñëw te danaa paas dellu yalwaanu ma li may laaj tam benn dërëm du ma si topp jëm Touba ci daara ji lay des mu gën a leer bàyyi taala santun ma ko tam Baye Talla doxewul noonu waaye damaa bëgg ñu xam ne dafa am lu xew te nit ñi il faut da nga leen koy leeral gis ngeen bisu tey bii mu ngi mel ni ceebo mu tooy ci mag ñi mag ñi xam nañ ceebo ceebo mu tooy loo sa ji la ngay am moo tax ñeen fukki junne laa bëgg ñu jox ma ko fii ma jàppee ko ci daara ji jërëjëf sëñ bi yow ñaari junne nga ma jox yaa ki njëkk ñëw yéen ubbi ngeen ma danaa am ñeen fukki junne lanal ma kol gu mag fii en na photo yi rafet ñu sanob ko dugal ko si TikTok yi waaye lii mbégte la taxawal ne taxawal taxawal nii moon la defal nii waaw wàcc waaw kay bàyyi Mamor nant la kay kay tuuti Mamor voilà nii moo gën a rafet soxna si na foto yi rafet ngeen dugal ko si tiktok yi na ngeen ko sanab dégg nga photo bi gën a rafet waaw waaw leen góor lii ndam la lii kum doyul dara du la doy lii ku ne neexul da nga koo amul lii ku ne neexul doom ji mokkal alxuraan te amul fukki at macha allah yàlla nga gudd fan lool yàlla nga wér lool yàlla nga am xam-xam bu bari ak xaalis bari barki borom Tuuba jërëjëf Ibrahima yóbbul ma lay fee ba yàq liggéey bi wool ma dong bi ci topp mooy kan Serigne Ousmane Diop waajuram di Serigne Ibrahima jóob ak soxna Maymuna soxna Maymuna nu mu sant Serigne Ousmane Diop bismillah waajuram bu góor Serigne Ibrahima Diop la waajuram bu jigéen soxna Maymuna Serigne Ousmane toogal taral ñu lu neex bismillah asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. waaw dem leen sa ruq ba ngeen foto ba doon jox ko diplôme yëpp. al mulku yawma idin lillaah yahkumu baynahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل sadaqallahul azim masha allah sëriñ Ousmane Diop di doom si sëriñ Ibrahima Diop ak soxna may ak soxna Maymuna Diallo moo fi tere alquran ju rafet jooju ustaasam sëriñ Baba Ndiaye moo koy jox ab diplôme am bismillah Ousmane Diop bismillah mursalin فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به واخفض جناحك للمؤمنين الشيطان الرجيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا waqifuhum تسلم إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله soxna awa neex def leen ku mokkal alxuraan tagg rek ak sargal ak kañ du bidaa du bidaa lu mën a am la lu war a am la yenente sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon def ku gënoon a mokkal mu beral la loxo Sëriñ Tuubaa bu mosaan a wax si tout tànk yi leen ma mag mais boo bëggee woo ku mage te mokkalu danaan la déedéet Sëriñ Tuubaa ku mokkal alxuraan loo doon doon gone mag la lay jàppee kon ñii bu leen kenn def ay gone yoo xam ne ñii nañ leen di bégal ndax liñ am moo rëy macha soxna Awa moo ko jox diplôme am mën na dem nee ngeen continuer photo yi ñu woo Serigne Fallou Mbacke soin bu Serigne Fallou Mouhamadul Fadal Mbacke Mouhamadul Fadal Mbacke moom Serigne Fallou Mbacke soin bu bismillah Mouhamad Fadal Mbacke moom Serigne Fallou Mbacke soin bu anamu. محمد فهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم taxawal taxawal sëñ Fallou sëñ Fallou taxawal tuuti bàcc kaay bàcc bismillah na tari sëñ Fallou parel bismillah waaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran fihi alquran hudan linnati wa bayyinatin minal huda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضل منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنفسهم أولئك هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون حسبك وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتناه وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين salaam wa بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البشر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين الفرار حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله Seex Ahmadu Bamba Kasse jërëjëf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 رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويزكيهم ما وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم حسبك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 وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ما شاء الله jërëjëf Mouhamed Mbodj Serigne Fallou Niass moo si topp bu noppee Ibrahima wañ Serigne Fallou Niass bu noppee Ibrahima wañ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام المودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 ولا لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش مستوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرع وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى fee allahu laa ilaaha illaa hu lahul asmaa'ul husnaa wa huwa ladaaka hadiim bismillaahir rahmaanir rahiim ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد wa ala alihi wa sahaabatihi al-ghurri al-mayaamin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin amma ba'd fa ayyuha al-haadiriina wal-haadiraat summa duyuufu al-kuramaa wal-ashaatidh an-nujabaa وأحييكم جميعا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. axifu amaamakum li urattila lakum maa tayassara lii min alqur'aani alkarim. wa fi dimni dhalika allimukum ismi wa ismu ummi wa abi. ismi Aysat Seck bintu Babacar Seck wa soxna Awa Ngom. auzu billahi min alshaytaani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس soxna Aysa li nga njëkkee ni mu neexee nga bëgg wa bashiri alladina amanu takkal xol bi rek takkal xol bi mu dëgër qadama sidqin inda rabbihim waaw kumba takkal xol bi mu dëgër qala alkafiruna inna haza la shihrun mubin إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما <laughs> bàjjenu daal mu ngi taxaw si wetam di baatare tey jooy lii de mooy jooyu xol nag macha yaayam macha allah. loolu la de waaw. salihaati xol baa ngay xol baa ngay tuuri xéwal waaye ma ngay baatare walladina kafaru lahum sharabun min qamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun ndeysaan huwa alladi ja'ala ash-shamsa diya'an wa qamara nuran wa qaddarahu وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والقفاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون عسى الله waajuram moo la jox kat mi ngi noonu sa ginnaaw asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf nee na nga dem photo ak daal cadeau bi Baye Talla Ndiaye moo ko moom sëñ Nasir ñëwal nangu ko Baye Talla Ndiaye moo ko moom waajuru soxna Aïssa moo ko jox cadeau bi ngeen di gis nii Baye Talla Ndiaye ko moom waajuru soxna Aïssa Seck moo ko ko jox moom la ko sëñ Nasir nangul nii bismillah jërëjëf ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله له Mbàkke xalif général des Mourides Serigne Modou Mamoun Mbàkke Fadilu Serigne Fallou Mbàkke Sohaybu Fadilu Serigne Moustapha Mbàkke et toute la famille de Serigne Mambor Mbàkke Serigne Talla Ndiaye père fondateur du Daara moderne Massalikul Jinaan Mesdames, Messieurs les autorités administratives et coutumières. Mesdames, Micro bi na jege les enseignants et enseignants. Mes, mesdames, Messieurs les parents d'élèves. Honorables invités, très chers camarades. De nos jours, nul ne doute que nous sommes exposés à de nombreuses tentations face aux réseaux sociaux avec ses avantages que nous louons, mais aussi ses méfaits dont la recrudescence des contre-valeurs, la dépravation des mœurs, les addictions, les vices et j'en passe. Heureusement, le Dar Masalikul Jinan se dresse en bouclier et symbolise un refuge pour les enfants que nous sommes. Vous l'avez bien accueilli et vous l'avez adopté comme le prouve la cérémonie de ce samedi 13 C'est donc une réelle occasion qui, s'offre à nous pour formuler nos sincères remerciements à l'endroit de tous nos parents présents dans ce merveilleux cadre. Chers parents, nous ne vous remercions jamais assez de nous avoir choisi le Dar Masalikul Jinan pour qui nous magnifions notre satisfaction. L'Institut nous propose un parcours d'une durée réduite qui, qui ne serait possible sans votre appui et celui de nos veillants enseignants et encadreurs qui ont toujours déployé les efforts nécessaires à notre succès. Nous remercions particulièrement notre grand-père Baïtal Ndiaye et prions le Tout-Puissant à de lui accorder longévité et une santé de fer. Permettez-moi d'exprimer l'immense joie qui affecte ma modeste personne sur qui le choix de la prononciation de ce discours a été porté. Chers parents, je suis persuadée que plus tard, par la grâce de Dieu, quand nous deviendrons adultes et que nous aurions hérité vos vertus, nous pourrions servir de, référence à nos progénitures, comme vous en servez aujourd'hui parfaitement. Alors, chers parents, nous approuvons votre dévouement à notre égard et encourageons à continuer à déclarer nos naissances à l'état civil, à nous inscrire à l'école et au dara, mais le plus important est de nous y laisser afin de mieux avoir ce sentiment du devoir accompli. Vous conviendrez avec moi que ce sont là quelques-uns parmi nos droits qui nous mettent naturellement dans une situation de redevabilité envers nos, droits, comme le, je cite, devoir de vous obéir et vous accorder respect et une considération, devoir de bien nous comporter à l'école, au dara et à la maison, devoir de bien travailler, pour ne citer que cela. C'est sur ces mots que je termine mon propos. En vous remerciant, chers parents, d'avoir répondu massivement à notre invitation. Excellent moment pour la suite. Merci. Sidna Mohamed Diop moo toog nii Sidna Mohamed déglu tuuti oustaz jox la li nga war a tari bismillah Mohamed Diaw Mohamed Diaw تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائه واشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفين واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله سيدنا محمد Diaw ñaa ngi mi am na solo muy tawfeex ju rëy